dëkk bi ngeen di gis mu ngi tudd Ngourane bu nekk dëkk bu am taarix ci Kayoor ak ci réewum senegal Ngourane daa dee nekk ci digg Kayoor ginnaaw boo rombee dëkk bu ñuy woowee Ngouma Ngéwul même su fekkee dëkk bii di Ngourane am na laataa ganu sek àdduna góor gu tedd gi di maam Cheikh Dethialaw Seck nekk taalibe nekk itam cheikh tariixa xaaj bu cheikh na Seex Saad bu tey su ñu xamee dëkk ba bili fépp ci senegal ak àdduna wërngal këpp waaye yàlla ju tedd ji di cheikh maam Déthié Seck loxoom jugu ci sëtëm sëriñ Modou Seck moo ñu xamle jaar-jaar googu tedd googu lii ak ay xalifaam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul e, ji taxaw di wax ak yéen mi ngi tudd Mamadou Seck. di doomu Cheikh Saad bu Seck ñu gën koo xam ci naa Khalifa sekk di doom ci Cheikh day Calaw moo am ay kàddu yu muy yëkkati jëmale ko ci kii nga xam ni moom lañu taxaw ci barabam bi ñëw ci dëkkam bu sell bi di nguraan mu tudd Cheikh Dey Calaw radiyallahu taala anhu waaw barab bii ñu taxaw mooy barab bi nga xam ni ci lañu denc góor gi Cheikh day Calaw mu nekk nii tëdd ci digg bi barab la nag boo xam ni sëriñam cheikh na cheikh saad bu moo ko digaloon ni ko barab bi nañ ko sàmm yoral la ko toppatool la ko bu yàlla defee nga jóge fii nañu la denc fii kon barab la boo xam ni cheikh na cheikh saad bu fi la doon samp ab xaymaam bu daan jóge nimjaat wala mu jóge xawdu fi lay fekk góor gi cheikh day calaw xayma fi ab xaymaam cheikh na cheikh saad bu ni ko bu ma fi yàlla defee nga jóge fii yow cheikh day calaw nañu la rob ci barab bii nii nga xam ni kon barab la boo xam ni ku mel ni cheikh na cheikh saad bu ak ni ko yàlla may nga xam ni si dafa ñaanoon yàlla ni ko wajal maqaami fi l anam ka shamsin aw badri tamam bi jaahi man naala alxitaam la siyama fi lmahshari kon boo xam ni am na yaakaaru moom la ko cheikh na cheikh saad bu denkoon moo tax ñu rob fi góor gi seex day jalaw ci barab bi góor gi yi nga xam ni mooy cheikh day calaw nit mënu koo xam ndax mbindeef la mu yàlla bind yàlla boole ko ci ay awliya am te yàlla nee nañ ci alquran inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun wàllu yi nga xam ni man yàlla maa leen defar waruñoo tiit waruñoo jàq ndax yàlla def leen préparé góor gi Cheikh Day Thialaw ci ñi yàlla préparé la bokk ci koo xam ne si juddu na en 1850 le Cheikh Day Thialaw juddu bisub alxames yoor yoor Cheikh Day Thialaw mi ngi wax ci jëzwatu diya bu téere la bu mu bind ni walla waladat ni ummi yowmal xamis sama wuyu jur di Borso Njaay mi ngi maa ngi gane man àdduna man Cheikh day Calaw bisub alxames waxta zawali heure yoor yoor bi mu ganee àdduna moom Cheikh day Calaw ni aw waxambaane di toll di màgg ab xale di ko màgg ci ay weer Cheikh Dey Calaw ci ay semaine la ko màgg Cheikh day Calaw ne waxambaane di màgg ci ay at Cheikh day Calaw ci benn at la ko màgg kon ku yàlla teel a jox sirru la yàlla defal ko it mu màgg nekk koo xam ne si xamul lenn loo xam ni baatub arab la boo koy bindal waaye loolu tekkiwul ni jàngul cheikh day calaw yàlla da koo jàngal dafa ne allamani arrahmanu alqurana kullan yàlla moo ma xamal alquran lépp bu ñu nee alquran nag waxuñu rek saar ya noonu rek kese waaye mbóoti alquran ak secret alquran cheikh day calaw yàlla doo ko koo xamaloon kon góor gi nga xam ni moom ngeen ñëw tey ci barabam bi mën nañ ni symbole la ci biir lislaam waaye mën nañ ni royuwaay la waaye mën nañ ni seetu la boo xam ni ku bëgg a gis yonent bi boo ko xoolee gis ko ndax yii ma lay wax nii Cheikh Day Calaw jàngul waaye da koo doon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa jàngul Cheikh Day Calaw mii jàngul waaye yàlla it dafa def ci moom ak leer moo tax mu ni yàlla daf maa xamal alquran fii laylatul jumaa ci la wax yàlla mi ngi ma jàngal alquran man Cheikh Day Calaw ci guddig ajjuma moo tax bi muy dem ci sëriñam Cheikh na sa Saad bu bi nga xamee ni dem na ba weesu paaleen Sele Jaañ la ko benn sëriñub daara yónni benn taalibeem ni leen woo leen ma calaw mu ñëw ma jàngal ko bu dee xam-xam lay wuti ci cheikh na mën naa koo jàngal cheikh day calaw bi taalibe bi ñëwee woo ko dañu ko irji ila cheikhika wa qul lahu inni maridun maradun muxawafun wala budda li min tabibin yu daawi nii xoolal kii nga xam ni demagul di làkk arab demagul ci cheikh na commencé làkk arab dellul ci sa sëriñ nee ko calaw dafa feebar feebar boo xam ni du feebaru yaram mais feebaru ruu la feebaru ruugu mar leer di wër leer feebar googu ma dal te faaw ma am sëriñ boo xam ni mën na maa gatandu faj ma ba ma wér ci sama feebar bi cheikh day calaw ne na wala adri annahu illa man jadduhu rasulullah yaakaaruma kenn ku ma mën a faj ku dul koo xam ni deretu yonent bi mu ngi daw sa yaram kon kooku commencé naa am xam-xam lu jiitu muy yegg ci cheikh na cheikh Saadu waaye di gën a yéeme ci cheikh day calaw mooy mucjisa bu ab yonente def rek cheikh day calaw def na ko ka karaama cheikh day calaw dong nga gis muy benn wàll yu bu yàlla def jagleel ko may goo xam ni dafay dekkal ku ku dee góor gii tëdd moo ko def góor gi tëdd di Cheikh Day Calaw moo njëkk feeñal laso yi ngeen di gis moom Cheikh Day Calaw ndax dañ koo tabaxal ca bujaay ba benn tabax bi ñu paree taalibe ñëw niñ ko góor gi Cheikh Day Calaw tabax bi rafet na lool waaye bu ñu ko weexaloon dey day gën a rafet mu ni fan lañ ko mën a amee ñu ni ko fii ñu ko mën a amee ci gox yi day jegewu fi mu ànd ak ñoom daagu ak daagoom yu rafet yooyu moom cheikh day calaw ñëw ba benn barab bu yaatu mu teg yatu yi mu yoroon ab diir ni leen gas leen fii boo leen gasee ngeen génn laso ñu gas mu génn ñu génn laso bu weex bu ñu demee ba laso bi doy mu ne leen ndax doy na ñu ni waaw mu ni ban ngeen soxlawaat ñu ni soxla nañ beneen couleur mu demaat ba ne ni leen gasaat leen fii ñu génnewaat beneen kon loolu karaama la gu seex day calaw def waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kaadatil karaamatu an takuna mu'jiza mooy karaama xaw tuuti rek mu doon mu'jiza mooy xaw tuuti mu doon lu ab yonent di def loolu bokk na ca la nga xam ni la ko yàlla mayoon mooy dekkal gi mu nekkal moom Cheikh Day calaw mu dekkoon loxoom nday jooru na Cheikh Saad bu Cheikh na Cheikh Saad bu taalibe bu mu seexal yaa jël say tànk dem fa kur gii di Cheikh Day Thialaw Cheikh Saad boo ko jël si kon mën naa ni man damay wax ni ginnaaw Cheikh Day Cheikh na Cheikh Saad bu ci àdduna bi amul benn wàllu yu bu ñuy dandale ak a méngale góor gi day calaw amul moo tax jadut bam ko seetee rek dañu ko a yaa day calaw qad jitu min boadin lil xaaji ma kaana zahiran wa ma batana yow cheikh day calaw man jadut di naar bu xonq cor maa jóge Maroc topp la cheikh day calaw ne ko lu tax nga ñëw mu ne ko lil xaaji ma kaana zahiran wa ma batana aajo ji nga xam ni am naa ko xam naa ni cheikh day calaw yaa mën a faj aajo ju lëndëm yaa mën a faj aajo ju leer yaa cheikhana day calaw anaxtu saaxatakum yamamtukum saarifan an gayrikum albasara yow cheikh day calaw man jëdut bi ma la gisee bëggatumaa teqli ko ak yow ndax gis naa ni ku xool ku la jàpp jàpp na ci ki loxo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon góor gi nga xam ne si moom ngeen ñëw ci gàttal daal pour xam ko laa yaalamuhu illa allah mooy kenn xamu ko ku dul yàlla waaye nag lañu ca jot a xam mooy li ñu ca yàlla wan ci ay mujiza ak i karaama yu mu def moom cheikh day calaw la ca gën a fës mooy lan li yuxrijakum min adulumaati ila nuur dayab li yonent doon def la Cheikh day calaw def nguraan gii mooy génne ñu ci lëndëm indi ñu ci leeru lislaam Cheikh day calaw moo indi lislaam biir nguraan gii moo fi tuxal wàlluk ceddoo indi fi benn baat muy baatu laa ilaha illa indi fi loo xam ne si tey ji mooy julli gi nga xam ne yàlla da koo gën a fonk moom moo ñu ko indil moom Cheikh day calaw kon wàllu la woo xam ni lépp lu waaye di wut ci nit ku baax Cheikh Day Thialaw yor na ko yemul ci wàllu mais buur la moom buur la boo toppee ay maam ay dammel lañu moom Cheikh Day Thialaw kon moom dafa boole ñaari maqaama mooy maqaamatu alsiyaada wa maqaamatu alwilaaya mooy ak buur la ak ak wàllu yu loola nag néew na ci wàllu yi nekk ci jamono ji nga gis ni boole nañu loola leneen li ci topp mooy Cheikh Day Thialaw cheikh na cheikh saad doo ko wóolu woon ba def ko loxo nday jorom di ko yónni fu nekk waaye yónni gi gën a siiw ci cheikh na cheikh saad bi yónni yi mu ko yónni mooy yónni gi mu ko yónni Maroc xam ngeen ni ca jamono yooyu xam-xam dafa nekkoon lu foor ñu ciy joxe alal yu dul jeex cheikh day calaw cheikh na cheikh saad bi yónni ci Faas mu dem fa ngir jàkkantoo ak naar yi waaye booba xam mooy tax nga jàll cheikh day calaw bu mu yegsee dañ ñi ko ayna allah ana fu yàlla nekk mun leen allahu fi kulli makaan ñu leen yàlla fépp la nekk ñu ni ko ndax mën nañ koo gis mu ni de laa ko l absaar wa huwa yudriku l absaar yàlla nee na kenn mënu koo gis ñu ni ko ndax mën ngaa dekkal mu ni leen mën naa dekkal ci barki cheikh na cheikh saad bu cheikh de ni leen boo leen weddee ngeen rey kenn ci seen biir ma dekkal ko ci daraje cheikh na cheikh saad ñu daan ni déedéet kon nañu wut aw weñ ñu rey ko bi ñu reyee weñ wi Cheikh day calaw bi mu ñëwee dafa tiim weñ wi woo Cheikh na Cheikh Saad bu ñeent yoon ak benn weñ wi jóg naaw ca ko jadut moom ma lay wax sànq toppee jóge Maroc topp ko ngir gis ni kat li mu am keneen amu ko moo tax jadut bi mu ñëwee ba yegsi ci moom Cheikh calaw li lay wan ni karaama ak wilaaya ci moom la fekk te ci moom la wàññi ko bi jadut ñëwee ba ci moom dañu ko Cheikh day calaw dani ko jadut lu la xamal ni man maa ngi nguraan jëtu ni ko bi ma génne Maroc garab gu ma jub rek danaan ma Cheikh day Thialaw mi ngay wër mi ngi nguraan Cheikh day Thialaw dafa muuñ daal ko xamoo ni man maa soppali ko garab yooyu di la giida ba nga yessi nguraan kon kooku mooy Cheikh day Thialaw ci gàttal feeñu gi ko Cheikh na Cheikh Saad bu feeñu da ko feeñu ci biirub teen teen bi nag nekkul woon teen bu ñuy gas teen bu ñuy reew li la woon gasoon nañ ko ba noppi mais dañ doon ko beesalaat Cheikh day Thialaw dugg ci biir teen bi mu bokkoon ci ñuñ fa dugal moom ak magam ju tudd manjaate bi nga xamee ni si nekk nañu ci biir teen bi ab diir cheikh day calaw cheikh na si saat bu feeñu ko ci biir teen bi mu gis ko mu toog ci benn der bu weex cheikh day calaw nee na fa raaytu cheikhina cheikh saadu abihi ala jildin abyada ma gis ko mu toog ci benn der bu weex nee na ma daa di dox mel ni lu jëm ci moom fa sallamtu alayhi fa qabbaltu yadahu sharifa ma nuyu ko foon loxoom bu tedd boobu léeg lépp ci biir ci biir feeñu gi nee na mu jékki-jékki wan ma ginnaaw gisatuma ko nee nag ma bëgg a dañ kumpa kii nga xam ni moo ma feeñu te ma yàgg koo gént kan la nee na ci laa wax ni leen génne leen ma ndax dafa am ku ma feeñu ci biir teen bi ñu ni ah Cheikh day calaw de xam naa dafa jommi kon ñu génne ko Cheikh Day Calaw daal di préparer ay bagages pour fekki Cheikh na Cheikh Saad xamul fan la Cheikh na Cheikh bu nekk musul dem xawdu waaye Cheikh na Cheikh day def rek bu Cheikh Day Calaw doxe mu feeñu ko ab diir ci kanamam bu Cheikh Cheikh Day Calaw doxee ba jub ko mu gën mu gën a demaat ca kanam ngir giide ko yoon yi ba mu yegg waaye li ci gën a yéeme mooy Cheikh Day Calaw lu jiitu muy génn nguraan mi ngi tari al quranul karim ndax biñ nekkoo ay na zaadu ko ana su yóbbal mu ni zaadi taqwallah sama yóbbool mooy ragal yàlla tax xam nga ni yàlla azza wa jalla nee na wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa na ngeen yóbbal waaye yóbbal bi gën mooy ragal yàlla ñu ni ko cheikh day calaw foo jëm xamoo yoon wi nga jëm mu ni inni muhaajirun ila rabbi sa yahdin yàlla laa dénk sama bopp te ku dénk sa bopp yàlla doo réer ca la daal di jëlee ay bagage am dem bi muy génn nag bi mu génnee nguraan jaar bàqaya jaar paaleen sele jaan jooju ma la wax dem ndar bi mu fa demee nag ñu ni ko mu laajte ndax amul ay naar yu fiy dem gànnaar ñu ni ko am na fi ay naar yoo xam ne ay jaaykat lañu dañuy dem gànnaar ba Cheikh day calaw jote ak naar yooya ñu ni ko mën nañ laa yóbbaale waaye nag li ñu lekk doo ci lekk li ñu naan doo ci naan te doo war ci giléem yi mu ni leen baax na ni ngeen ma yóbbu rek mën naa ànd ak yéen di dox bi ñu xëyee ànd ak moom di dox naar yi xëy war seeni gileem mu topp ci ginnaaw di dox bi ñu ba yegg ci digg àll bi ak dégg jam ko moom Cheikh Dey Jalaw bi ko dégg jamee taw bi commencé taw dëgg gi daal di solu ndox tànk bi neew yi ba mënatuloo dox naar yi ni ko nag comme yow mënatoo dox nañ la bàyyi fii till yi lekk la ak rabi àll yi ndax doo ñu yàggal ci yoon wi Cheikh na Cheikh Saad bu nga xam ni wàll yu la wu kenn du kenn dul dab daa di woo benn taalibeem jox ko gileemam gi ni ko waral sama gileem gi nga dem gatandu génn góor gu ñuy wax calaw ne ko mu war ci gileem gi mu fekk si ma nga indi ko bi nga xamee ni gileem gi ñëw na Cheikh calaw ni ko man rus naa di yéeg ci gileem goo xam ne sama sëriñu ko moom bàyyi ma ma jéem rek ba dox ba yegg ci Cheikh sa Cheikh bi mu yeggee nag ci tuwaysig bi mu gisee Cheikh sa Cheikh bu dafa dafa daanu nelaw moom cheikh day calaw taalibe yi bëgg ko yee cheikh na saad ni leen ëtrukuhu yanaam bàyyi leen ko mu nelaw ndax man yàlla damaa may man cheikh na saad bu garaat boo xam ne taalibe bu ñëw ci man di nelaw jamono yooyu yaa ngi dox ci leeri suñu borom yi bi cheikh day calaw yewwoo cheikh na saad da dugal xalwa jox illa allah ni ko tuddal laa ilaha illa allah del dëkk di zikkar te zikkar Cheikh na Saad bu ku mu defar ci loolu la defare zikrul ilahi lil qulubi quutun fa ida intaha fa innaha tamuut silahuna haylalatan tukarraru kalimatun ma qaalaha qaddin shaqi lakina ma faaza biha kullu taqi ñu ni ko Cheikh na baat bi defar ban la mu ni wahiya la ilaha illa allah laa ilaha illa allah lu mu mën a defar mu ni man qaalaha fa qawluhu kafaa ku ko dëkkee di wax dara mënut laa lor ci defaru ngay dëkk ci noonu cheikh na sa saat bu soxla ab néeg ci Tawfekh liggéey loo ko góor gi cheikh day calaw mi booba ciment yombul booba zinc yombul waaye cheikh day calaw def na lu mu man ba tabaxal cheikh na sa saat bu néeg bi ba mu yegg cheikh na xool néeg bi mu jekk lool cheikh saat bu ni ko jazaau man bana lana daaran fa jazaauhu janna ni ko waat naa ni képp ku ma tabaxal man cheikh na sa saat ab néeg ci àdduna yàlla dina la defal néeg ci biir allaaxiraw ci biir àjjanaw cheikh day calaw nag lu taalibe di tarbiyu ab sëriñam defal na ko cheikh na cheikh saad ndax cheikh day calaw dafa wax ni awalu ma adkuru minhum annani qad kuntu fi ahli gayra muminin axadani min bayni ahli ajmaan kay aslukanna tariqahu muttafaa akramani bi qaayati alikraami tarbiyata almuridi bitamaami nee na man daal li ma xam mooy Cheikh na Cheikh Saad lu taalibe war a defal ab sëriñam rek defal naa ko tarbiyatal murid bi tamaami mu ni nag waaye Cheikh na it lu mu war a defal ab taalibeem defal na ko wasale nii waradda nii li ahli mooy lan Cheikh na defal na ma li ma doon wut man Cheikh day calaw waradda nii li ahli mu delloo ma sama njaboot delloo ma sama waa kër waxassani bil itinaa wal fadli xatta aqtataftu diina nabil hachimi ñu ni ko Cheikh day calaw foo yegg xatta saara li daarani fi fi fi tamaami ba yàlla defal ma man Cheikh day calaw ma nekk koo xam ne day gindi aka wax ci lislaam lu kenn mënta dindi kon kooku mooy góor gi Cheikh Day Calaw mi nga xam ne si moom ngeen ñëw gane si ko tey ñëw ci barabam bii nga xam ne si mën nañu ni barabub àjjana la ndax Cheikh na Cheikh Saad moo ni ko kat fii boo fi yàlla defee nga jóge fi nañu la denc ci barab bii Cheikh na Cheikh saat bu nag ñaanoon na te ñaan googu yemul ci barabam boobu di Nimjaat mais ci barabu bépp fu ñu denc taalibeem wajaal maqaami fi l anaam ka shamsin aw aw aw badri tamaam bi jaahi man naala alxitaama la siyama fi lmahshari cheikh saad bu ñaanoon na it wajaal darixiya ka baytika alxaram tuqda fihi xaajaatu saairi l anam yàlla defal sama barab ak barabi sama taalibe mu dekk fajuwaayu aajo kon fii ñu ñëw tey ji mën nañoo jàpp ni suñu aajo yëpp mën naa faju ci darajey cheikh day calaw radiallahu taala anhu cheikh day calaw nguraan la dëkk fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee cheikh day calaw bu ñu ko waxee rek wax nañu nguraan waaye Cheikh Day Calaw it bu ñu ko waxee wax nañu lislaam Cheikh Day Calaw bu ñu ko waxee wax nañ bahrun la saaxila lahu mooy wax nañu géej gu fees dell ak xam-xam boo xam ni kenn mënu koo jeexal Cheikh Day Calaw li lay xamal ni xam-xamam kenn mënu koo peeg kenn mënu ko faa yegg mooy doom yi ko yàlla dénk muy góor gi Cheikh Aline ak góor gi Mamoudou Cheikh bu dee wilaya ngay wër boo ñëwee ci maam du Cheikh nga fekk fa wilaya goo xam ni dootoo ko gis ci keneen waaye bu dee xam-xam ngay wër boo dajeeg Cheikh Alioune dootoo gis xam ci keneen moo tax Cheikh Mbay Mbenda bi mu koy woy dañu ko naala bihi ma naalahu sudaan dañu ko sa ñaari doom yi koo raw rek ci nga leen rawe ndax Cheikh Alioune Cheikh Mahfou da koo jàngal defar ko ndax Cheikh na Thialaw da koo jël jox ko Cheikh na Cheikh Saad ni ko ni ma defaree laa bëgg nga defaree ko sama doom ji di Cheikh Ali na Cheikh bu jël Cheikh Cheikh Ali moomu jox ko Cheikh Mahfou doomam ni ko doomi Cheikh Cheikh de Thialaw gii laa bëgg nag nga yor ko te defar ko Cheikh fu moom it daal di koy jël jox ko maam Mamine Salaama ni ko kii doomi Cheikh day calaw la damaa bëgg lu sama baay defoon ci baayam mu am lu ko raw baa lu ko toll. maamam it salaama nàmpal ko jàngal ko Cheikh Aline teel a gimbi ci xam-xam teel a ràññee bis bi ko Cheikh Mahfou di indi di ko indil Cheikh Cheikh day calaw bis boobu Cheikh Mahfou nee na lu doon naaw ci jamono ji rek bi ma génnee man Cheikh Mahfou ànd ak Cheikh Aline lu doon naaw boo ñu séenee daanu garab bu doxoon sama diggante ak Cheikh day calaw randu na man Cheikh Mahfou bi ma ànd ak Cheikh Aline nee bi ma ñëwee ba indil ko Cheikh na Cheikh Saad bu ni ko bàyyi doomu Cheikh day calaw jaa ngi nii loo ma digaloon def naa ko nee na Cheikh Saad bu dafa jël loxoom bu tedd bi teg ko ci loxo ci bopp Cheikh Aline nee na ab diir ni ko Cheikh ma fu ah li nga def ci moom dafa ëpp nee na dóor bopp bi nekk ndànk mu wàññi ko ni ko liy doy na daal di ko Cheikh Aline ŋaawal moom Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh Aline ŋaa Cheikh Cheikh Saad bu sàqamee dogu yàpp ba mu mokk mu yàbbi ko ci gémmiñu Cheikh Aline ni ko baas boo toogati ku fa toog yor xam-xam xam ba dana naaw ba kor nga fay jóge yow Cheikh kon ku am doom ju mel noonu kon bàyyi kon nu mu war a mel bu dee Moodu Cheikh wilaaye ku koy wër ba yegg ci maam Moodu Cheikh da nga wàññi ndax moom ci boppam dafa amoon benn taalibeem buy tux moom maam Moodu Cheikh mu fekk ko ci àll bi muy tux nee na mu ñëw ni ko jox ma li nga yor nee na mu jox ko ko mu ni ko defal ma ci gënn gi mu defal ko nee na mu daal di def nii ci jant bi mu boy mu ne ko boo mënul li bàyyil tux ndax wilaay gu ko yàlla mayoon Mamoudou Cheikh yegg na ci wilaay ba Cheikh Mouhamed Fadel mi nekk ngumba da ko doon seet si daan ni ko bu génnee daan ni yéen kii boo leen ko xamoon di ngeen tabax am néeg dugal ko ci biir tëj ko bala koo kenn gis day fay te xamul woon lu dul rek ak wilaaye képp la xam te moo ne mooy taawu Cheikh day calaw doomam la boo xam moom ak waaye ci wilaaye bi góor gi Cheikh Day Calaw génne àdduna ñu war a xool kan mooy xalifa Cheikh Day Calaw moom moom ak Cheikh Aline mais da koo woon ni ko Cheikh Aline jiiteel njaboot gi ndax man du ma nit waa àdduna man sama genn wàllu malaaka la sama genn wàllu nit la mënu ma leen a jiite dana ko Cheikh Aline bu dee jàmm demal bu dee ay wooma man maamu di Cheikh kon kii ñii ñoo daroon góor gi seex Day Calaw nekk ay doomam doomi leer nag Cheikh Day Calaw nekk seen baay jàngal leen teg leen ci yoon woo xam ne si moom fa la jaaro moom Cheikh Day Thialaw kon loolu la Cheikh Day calaw sosee woon nguraan kon Cheikh Day calaw nguraan la dëkk fi la fekk baax fi la ay maamam dëkk fi la ay baayam dëkk moom Cheikh Day Thialaw البصير والنذير waaw loolu Cheikh Mbay Mbenda moo jàkkaarloog góor gi Cheikh day calaw mi qaala alfaqiru umaw yu na saba amraani yu maalikul masaba sama góor gi nee na Cheikh Mbay Mbenda nee na kii kat may woy bu leen ko laajte ndax almaliki yu ci ngirug Malik la madhaban di aw yoonam المنتج الأفران ذنبي كثير بجاي من هو البصير والنذير Cheikh Mbaye Mbenda nee na ku bëgg yàlla jéggal la del xool Cheikh day calaw mi te dëkk di ko liggéeyal muridu cheikhina waliyul kaamili cheikh day calawkat mooy taalibab cheikhna cheikh saad bu di nekk wàlli bu mat sëkk saadu rabil faadili ibnul faadili ñu ni ko cheikh mbay mbend ki ngay wax ni mooy sëriñu cheikh day calaw mooy kan mu ni mooy cheikhna cheikh saad bu di doomu cheikh mohammed waad alxabiruna daba ñu ni ko cheikh mbay mbend ba tey xamuñu kii mu ni kii kat mooy doomu cheikh mohammed waadal mi nga xam ne jur na téeméeri doon ñépp di wàllu yu alasariyu malikul mazhaba ñu ni ko cheikh day calaw kii kat ban ngi ngir nga bokk Cheikh day calaw ni leen man mii kat maa nekk ci Mbay Mbay ni ko maa ngi sant yàlla mi nga xam ni lu waaye di bëgg mu yegg na nga ko tàmbalee ci sant suñu borom mustanjahu Cheikh Mbaye Mbend nee na kat lépp lu waay di woy te bëgg mu yegg na nga ko tàmbalee di ci alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi almuhamidu ñu ni ko kon ñi ngi sant yàlla ci cant yoo xam ni yàlla la ñu sant la ko yow yàlla yàlla darali zul jalali waaxidu ndax yow yàlla yaa fi nekk di càppaaculi te amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul yow alhamdulilahi alladi nahtasimu kon yow ci yow rek la ñuy sant yow yàlla te jàpp ci yow bil fadli min kulli suin yasimu ndax yaa ñu sottil ay ngëneel ndax wa anna al fadla bi yadillahi tii tiihi man yasha kon dañ lay sant yaw yàlla ndax kat bu ñu la santee da nga ñu dolli la in shakartum la azidannakum waaye dañuy dëkk di sant yàlla ak di ko dimbali ko moom suñu borom billahi naddi wala safi min zulalil xawli wala wifi ndax yàlla mii kat mooy ki nga xam ni mooy génn ci lëndam dugal ñu ci ak leer ay sama góor gaa ngi nii bural yoo ma jàpp baatin góor gi Cheikh day calaw mi moo jël benn qasida bind bi daati rabbil izzati wa rusulihi almursalati nee na yàlla yow mi nga xam ni sa melokaan kenn mënu koo gis sa yonent yu tedd yi nga yónni kenn xamul seenub lim man Cheikh Day Calaw def ma ma doon sa wàllu yu def ma doon sa xarit Cheikh Day Calaw ni leen am naa maqaama bu benn wàllu yu dootul am ñu ne ko Cheikh Day Calaw ban maqaama nga am mu ne Abu Bakrin ak Umar ak Aliin ak Ousmane <laughs> bàyyi koo nañu Màkka bàyyi koo Madina ñëw ziyaara si ma man Day Calaw cheikh day calaw ñu ni ko bindal ndax loo bindul amul seeda mu ni wa bi abi bakrin il aara wa bi aliyin wa omar arju bihim xusna al mudar ñu ni ko kañ la siyama fi lqiyam ba ko rek yowm alqiyam kon kii mooy góor gi cheikh day calaw mi nga xam ni moom ngeen siyaare waaye cheikh day calaw nee na wa an yanaalu ma talab ah. li nafsihi wa man ahab wa kum man lahu alqurub la siyama fi lqiyam cheikh day calaw nee na ku bokk ci man ku ma sopp ku bokk ci sama deret ku nekk sama taalibe bul tiit bul ragal yowm alqiyam ñu ni ko lu tax mu ni ko cheikh cheikh na cheikh saad bu nee na ma man cheikh day calaw sa takunu fi dunya amiran ah. wa fi l axirati sultaana alaxira yaay atte yow cheikh day calaw koo bëgg mu dem ajjana mu dem koo bëgg mu dem safara mu dem moom kooku mooy cheikh day calaw radiallahu anhu cheikh day calaw li mu yoroon moo raw daara ndax daara da ngay ñëw toog ñu jàngal la di la tarbiyu cheikh day calaw da sol da lay liggéeyloo rek boo fi jógee xam lu sa moroom xamul moom cheikh day calaw tabaxul woon daara mais li mu yoroon sirru daara la yoroon moom Cheikh day calaw comme li Cheikh na Saad bu yoroon tabaxul daara joo xam ku ñëw rek da nga fay dugg di jàng waaye dafa yoroon lu raw daara te mooy lan kuñ ko mas a jox Cheikh day calaw da lay liggéeyloo def ci yow baatin def ci yow lépp lu war ci yow boo jógee ci moom mokk la alquran te jàngoo ko loolu sirru boobu la Cheikh day calaw yoroon Cheikh day calaw musul jàngal benn taalibe alquran waaye taalibe yo mu yoroon yëpp a mokkal alquran ndax dalee sol moom Cheikh day calaw alquranul karim kon kooku mooy Cheikh Day Calaw radiyallahu taala waaw Cheikh Day Calaw bi mu génnee àdduna mu nekk bis bu bis bu lëndëmoon ndax ki nekkoon njëriñu àdduna nekk njëriñu allaaxira nekk njëriñu mbindaafon yi mu wuy ji boroomam waaye nag jëm ci àjjana joo xam ne miin na ko moom Cheikh Day Calaw waaye nag mu teelat defar ñi koy wuutu góor gi Cheikh Alioune mi nga xam ni si Cheikh Day Calaw da koo yóbbu woon ci Cheikh na sa Saad moo njëkk a nekk xalifa Cheikh Day Calaw moo ko wuutu la ko waral nag mooy Cheikh dafa nekkoon ku amoon xam waaye teel a jàng nekk ku lewet Cheikh Day Calaw bi mu fi jógee Mamoudou Cheikh moo ki mag Cheikh Alioune waaye Modou Cheikh da ko woo ni ko jiiteel njaboot gi ndax yaa leen mën a jiite man du Cheikh mënuma leen a jiite waaye demal xilaafa gaa ngoog lépp luy jàmm jëlal nga doxal waaye bu dee awee woo ma kon ki njëkk a toogal Cheikh day calaw ci xilaafa gi mooy góor gi Cheikh Ali bi mu fi jógee ku ñu wax doomam di Cheikh Saad bu Seck di suñu jur moo ko fi wóotu ginnaaw góor gi Cheikh Cheikh Saad bu sekk mooma ab sëtam mu ñuy wax cheikh naa Mamadou sekk di doom ci maam Modou Cheikh ñëw wuutu ko ci xilaafa gi bi nga xamee ni si góor gi cheikh naa du sekk jóge na fi góor gi cheikh Makhtar Seck wuutu ko ci xilaafa gi ba fii may wax ak yéen te di ñaan yàlla azza wa jalla yàlla yokk aw fanam yàlla wéral ko yàlla kàttanal ko ba li nga xam ne si naal yi mu laal ci kër maamam cheikh day calaw yàlla yeggaleel ko ko bi jaahi nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal mbokk yi fi teew ñëpp te waaye di ñaan ci barki góor gi di Cheikh Day Calaw mi nga xam ni si lu waaye ñaan ci moom mu nangu Cheikh Day Calaw mii moo joxe woon sirru daal ni ku ñëwati sama barab boo bëggee loo ñaan mu nangu taril ñeent fukki xul wallahu ahad ak benn boo ma ko joxee àddiya loo ñaan yàlla nangu kon ñi ngi koy ñaan ci darajaam ci barkeem ci li mu man yàlla yokk seeni xéewal yàlla guddal fanu xalifa bi yàlla defal ñu kàttan defal ñu wér bi jaahi nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam góor gi Cheikh Day Calaw moo nekk na ci digg bi kii mooy góor gi Cheikh Aline mi ma la wax mu nekk première xalifaam kële ci penku ba moo nekk góor gi Mamadou Cheikh mi nga xam ne si kuy wut wilaaye baa di ko wër boo yeggee ci moom danga xam ni kii nga dajal kat dootoo gis kenn ci moom ku mel ni moom ci kaw suuf kon ñii ñoo séq góor gi Cheikh Day Calaw radiyallahu taala anhu donte am na yeneen i njabootam ndax ñi fi nekk ñëpp ay njabootam lañ ak i taalibeem ñi nga xam ne si ñoom la ñu ci barab bi kon loolu mooy li nga xam ne si yàlla defal na ko Cheikh Day Calaw defal ko it ñun ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ñu am yaakaar ak xel mu dal ci bi ñu yàlla boolee ñu bokk ci ñi ko sopp bokk ci ñi ko bëgg ndax yàlla azza wa jalla nee na kat inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun wàllu yi nga xam ni man yàlla defar naa leen bu ñu tiit bu ñu jàq seen ak njaboot bu ñu tiit bu ñu jàq kon loolu mooy li nga xam mooy kàddu yi ñu fi doon ñaan yàlla azza jalla yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu mu wutu maamam ak ki ay bayam ci kilaafa gi Cheikh Matar Seck nekk xalifa nguuraan mu ngi ci ay tànk yeggali naal yi nga xamante ni ay waajuram yëkkati woon nañu ko. tey nag ñu ngi ñëw fii nga xam ni mooy fii teenu bi nga xam ni moom la Cheikh Saad bu fee ñëw woon maam Cheikh day Calaw Euh, Cheikh Matar bi mu toogee di xalifa maam Cheikh Day ci naal yi nga xam ne naal na ko bool bokkoon na ci dekkalaat ten bi Cheikh Saad bu feeñal feeñoo woon maam Cheikh Day euh, defar ko mu gën a moderne nit ñi nga xam ni njariñ liñ fiy wut buñ ñëwee au lieu ñuy nekk ci forme bi nga xam ni moom la nekkoon ñu ciy mën a wut ndox ñu def ko forme bu moderne boo xam ni boo ñëwee yaaru forage day doon da ngay tijji rek wut si ndox barkeelu si ci naal yooyu tamit ci la taxawale lii nga xam ni ci bërëb bi teen bi nekk moom lay def euh, résidence Mame Cheikh Ndeye Thialaw ngeen gis ko nii liggéey yi commencé euh, ki yaa ngi nii euh, mason yi ñu ngi nii nekk si liggéey bi commencé ko loolu mooy li nga xam ne naal yi nga xam ne sëñ bi naaloon na ko leneen li ci des mooy historique gu teen bi sëñ Modou waxtaan na ci sànq ci ni mu demee woon ni ko Cheikh Saddu feeñoo ci teen bi ak ni mu demee ba ci moom ba ko boppam loolu lépp. gannaaw ba ñu tàllalee suñu micro. set ak i taalibe Cheikh de Thialaw Seck. lii lañ leen indiloon. ngir ñu gën leen a xamle. wàlliw bu mag boobu li nekk cheikh ci cheikh na cheikh saat bu waaye itam wane la leen ci naal yi nga xamante ni xalifa cheikh maam de Déthialaw Seck sëriñ Matar Seck naal la ko ci dëkk bi ngir mottali ak jëmmal liggéey bi fi maamam sumb